حلاة لسي في كل شهر وفي سفر حماني على ماني مع العبس والسفر وحنا إني أخاطبه في البحر مغتربا ولم يزل جل قهارا وجبارا من لمانجي وحق سما wax maa ngi waxanteeg moom boobu maa ngi ci géej gi nekk muxtarit maa ngi nii ci géej gi nekk ab kutumuranke koo xam dafa sori ay njabootam waaye nag yàlla mi ma waxal moom umpulewut wuutewut te tëlewut wala mu yesal jàlla qaharan wa jabbaara moo ne moo ne ci kaw lépp mu ngëb lépp it ci ci coobareem kon foo ay ne ak noo fa nekk rek boo wéeroo ci moom mu aar la moo tax ak nekkam ci noonu ya jeexitalut ci moom lu xanaa gën ko yokk gëm yàlla ak gën a wóolu yàlla di wax lam doon wax di def lam doon def ba noonu ya ko yóbbu woon delloo si waat ko kon maa ngi wax ak moom ci biir géej gi nekk ku ku tumuraanke nekk ab doxandeem ndax nekkuma ci sama sama njaboot waaye nag di bàyyi xel yàlla mi nga xam ne moo not lépp moo yilif lépp. وفي سفر حماني على ماهي ما لبس واستفر